yàgg na fi mais bii nii moom dafa ëpp parce que kin naan Babacar Diack moo ma ñu dara mooy Diack moom mooy directeur marché bi day ànd ak semis yi ñëw fii jàpp sa bagage jël yóbbu. ñuy woowee kii Babacar Diack moo ñu xañ jàmb pendant deux jours temps te balaa événement bi ñu ngi doon lal nice ku ñu tudd kii nii di Diaw Diaw bi kooku moom amul problème saa yu ñëwee dañuy organiser normal waaye Diack moom temps yëpp dañoo xañ jàmb te événement bi la. dëkk bi lañ am muy Serigne Mbuub ndax ñun moom lañ gëm moom lañ jox suñ bopp ndax doomu dëkk bi lañ kuy gërëm daa war a gërëm sëriñ Mbuub ndax lépp moom la. maa ngi doog a lal nii maa ngi doog a lal suba ba léegi suba ba léegi maa ngi si démarche pour bëgg a jaay suba ba léegi maa ngi doog a lal. am na jigéen ñoom ne xaalis projet la ñuy liggéey ñenn ñi fi ay natt leen defoon seen marché bi ñu teggi ko ñeneen ñi def seen i taab ba jënd seen bagage yaakaar fii yàlla kon war nañoo bàyyi ñu dabu fii yàlla mais bu ñu ko bëggee xañ kon ana fan la ñuy xaar yàlla te ñu ngi nii gisoo fi benn bagage danoo jël pousse-pousse yi ak yëpp dem yóbbu si ginnaaw laax ko fa boobu léegi amul jaam amul salaam mayu ñu ñu teg mën a lu toll ni tarfata ne pour mën a jaay te lii yàggu dans quelques du dara seulement euh, boo ne ambulant boo seetee nekkul ko am place mooy koo xam ne dafay wër di jaay mais ñii nekku ñuy wër di jaay ñu bëgg a créer ay place ci kaw voie bi la ci kaw tali bi alors que oto yi ngay gis nii li tax ma ne leen reportage fii la baaxee. mooy que ne oto yi mënuñu war a moom tali bi war fa jaar ñoom ñu bëgg ñëw ci kaw tali bi teg fa ay pousse-pousse ci kanamu pousse-pousse bi am ku tegaat lal ku nekk indi loolu neex installé bañ dem bay xëccoo ne place yooyu ñoo ko moom ci kow tali kon kooku nekkatul ambulant bu mu génn ne man ambulant la buy wax danga nga ñëw jël ko tali bi jël ko place oto yi di bëgg a jàll duñ jàll su ñu la puusal sax nga mere oto bi wala nga yuuxu ko finalement anarchie lay doon et nous sommes de droit donc kenn ku nekk boo defee lu neex kenn am lu neex donc On a appelé la police, nous a dégagé voie publique, c'est ça. C'est tout simplement ça et on va pas s'arrêter. On va aller dégager, Voilà, ce a, que nous, ici au Sénégal, il faut que nous commençons à savoir ce qu'on nous ce qu'on te yoon santané ko nga def ko li la warul war warul te yoon ayé ko nga yoon bu démé ba rek c'est parce que les muy les xam na lutax mu te nañ waxante deug medd bi nek sama gannaaw boko xolé xolal ñaata auto nga gis ñu ngi rombu di dem ñepp ci medd bobu la jaar bu ñu bëggee jaar ci medd bobu yow nga ñëw sa soxla mo la njëriñ tek sa pouce pouce jaay ñi ñëw indi seen ay pan euh, étagère tek ku nek ne limay jaay mu ma client yi boole ak yow lolu di jël di ko ñëw di di mu nek sa mbaxloo nit ñi dootuñ doxati seen soxla maladie duñ jallati dem ñafa dekk duñ ñibi seen kër yi ci won leen tamit duñ jall il va falloir que kenn ku ci nek nga xol li leen wax nak proposer leen ko te nekkuloon droit ci ñom parce que boy jaay day fek nga am place nga door tok jaay amo place da ngay xaar ba am place nga jaay projet jaay dafa am nu muy démé damay bëgg jaay damay ut place suma ma place ma xam fan lay jaay fi may jaay suma ko xamé nak ma xol ndax client yi fa nek ño fa nek pour soxla ma pour ma jaay ma dem jaay fa ak produit ma fay jaay aussi mais do jëk jëk li la bëgg jaay téye say bagage xol rek place bu la dé nga ñu samp fa jaay non non non